fekkee ne émission bi dimanche lañ ko def wala tel jour lañ ko def. parce que les faits ils sont sacrés. Mm-hmm. mais léegi nag le commentaire il devient libre et le journaliste a le droit de faire des commentaires. Mm-hmm. mais tey pour nga gis journaliste bu def yenn commentaires yi ci Ousmane Sonko commentaire désobligeant négatif c'est un mm-hmm. problème. damay di xool sama rak bi nga xam ni yàlla def nañu si si man la commencé muy Assatou Diop Fall parfois jour ma ko dégg naan Ousmane Sonko est un mythomane Ousmane Sonko est un menteur Ousmane Sonko est un manipulateur dama toog dama ne ay xanaa dafa dof ça veut dire que les followers de Ousmane Sonko vont l'attaquer mais su booko la man sama nekk li ñoo am fit boobu et pourtant Ousmane Sonko n'est pas euh, nit la comme ñun ñëpp day def ay erreurs na yoonam mi ngi tegu si yoon yàlla na ko yàlla lafal cat ba li mu bëgg mu am ko bu bëggee nekk président bu fekkee moo gën si moom gën Sénégal yi mu nekk président mm-hmm. mais quand il commet des erreurs il faut que ñu taxaw ni que ni il a des erreurs mais tey pour bañ ku la saaga bañ ku la xaxar bañ ku la amee sur les réseaux sociaux bañ ku wulli sa sutura en tant que journal da nga naan affaire Ousmane Sonko naa waaf te loolu dafa commencé bari si li nga xam ne que ni moom mooy dëkk bi bu njëkk journaliste day ñëw def liggéeyam collecté traité diffusé publié bu amee commentaire bu muy def mu def ko jóg dem yoonam après la ñuy wax ca gannaawam du ko xool euh, sama rek Pape Alé Niang def naan ma gannaaw man ma xool commentaire damay def leen dem sama lu ñu bëgg wax nañ ko wax la dernière fois dama lay jox benn exemple boo xam ne je l'ai vécu et ça fait très mal mm. mooy bi Mamour Ibra Kane defee benn commentaire sur Touba mm. lu ñu koy yàqul amul je me suis dit mais attends est-ce que les gens ont écouté Mamour Ibra Kane est-ce que les gens ont lu Mamour Ibra Kane mais y combien de mourides au Sénégal ñëpp jóg dafa réew xamul dara dafa xamadi. moo fi defoon nii bon je veux pas revenir sur tamit. deful non non non xam nga commentaire moo demee noonu dangay wax li nga xalaat. par rapport à une problématique donnée. Hmm. mu def ko mais ñu ko yàqul amul. par la suite il a été obligé mu dem présenter ses excuses au khalife général. après les gens ont découvert que Mamoudou Ibra Kane bi ñuy wax ak Mamoudou Ibra Kane bi nekk. j'ai dit que c'est je l'ai dit dans mon livre c'est l'un des journalistes les plus corrects de ce pays. les plus courtois de ce pays les plus cultivés de ce pays. Mm. bu dee discipline jox ko professionnalisme jox ko gàcce ngalaama mais pour juste un commentaire ñu bëgg la lyncher sur les réseaux sociaux. moo tax la dernière fois bi ma gisee ñu dem ñoom ak seen groupe def benn documentaire sur la Mouridia. Mm. xalif bi ñu deralu leen tap tapis rouge xalif bi recevoir leen ñu teg film bi ñëpp kontaan ñu gàcce ngalaama macha allah j'ai dit mais mm. pourquoi les gens ne lui ont Mm. Parce que la dernière fois, on s'était trompé. Il, mm. un journaliste, il se trompe aussi. Je ne dis pas qu'il s'est trompé, mais je veux dire, par rapport à une situation, Dangawara dit une position. Position, c'est à travers le commentaire. Mm. Maintenant, malheureusement, dans une société, les gens ne pardonnent plus rien. Ben erreur bunda c'est amplifié, on va te lyncher. Si tu as de la famille, tu as des amis, ça fait très très mal. Mais man bindana fi ben mbir bok ben ben famille. suñu deru famille nga yàq. Ah léegi njóobeen gi est que doo si génn ma ne ko. je hmm. mën naa tudd benn maxtaar rek tout mais li may def sama wàllu métier. Hmm. xooluma si papa xooluma si yaay xooluma si. Hmm. tant ma gëm la moom laay wax. je vais le je n'accepte pas de porter le combat d'autrui. parce que itam loolu mooy rôle journaliste. c'est foofu nga waxee mooy loo xamante ne si dafa raar que da ne li nga gëm noonu ngay waxee sa métier amoo ci xooloo ci papa xooloo ci yaay. mais léegi nit ñi dañuy dañuy def métier. pour que parce que awma leen lu ma def xaaruma def journalisme parce que tamit journalisme mën nañ ne bokk na ci métier yi gën a xew ku jug ne journaliste Mame Faty Deme mu jug ne journaliste wala lii wala laa léegi est ce que yaakaaroo ni que ah kii laa fóot parce que yow bind nga sa morom bind nga comme ni nga ko waxee sànq. Hmm. mais depuis boobu ba léegi gis nañ ni que jugewu ko fi peut être mi ngi fi wàññeeku mën nañ ne mais jugewu fi mi ngi fi nekk ba léegi corruption mi ngi fi nekk ba léegi bon yi mi fi nekk ba léegi ak garante yeeg mi ngi fi nekk ba léegi d'ailleurs que ci lépp ci matériel yëpp sax lañ koy defee léegi. Mm-hmm. lan mooy problème bi c'est quoi le problème ay ay patron de presse la wala nit ñi nga xamante ne ñoo jug ba nga nekk journaliste ñoo amul ful la wala éducation bi la wala lan la. xam nga euh, mën nañ si boole affaire yu bari. Mm-hmm. moment yi ñuy wax nii la commission bi distribuer les cartes de presse nationale ñu ngi Saint-Louis. Mm-hmm. Euh, carte de presse nationale boobu bu génnee mën na changer lu bari. parce que il faut que organes yi nga xam ne ñoom ñooy contrôler ñu nekk des organes coercitifs ñoom le pouvoir de sanctionner faw ñu egg si loolu muy benn le deuxième élément euh, il y a de gens qui entrent dans le métier par effraction man dama am école de journalisme mais damay gis nit dafay ñëw ni ma est-ce que mën naa def formation si ñetti weer ma dem que ñetti weer mu ne hmm. man moom mënuma former journaliste si ñetti weer mu ah man daal lu gaaw laa bëgg ma ne ko mën ma mën naa sax fay lépp mais du ma def at dama fi def ñetti ma dem man ne ko noonu <laughs> mu ma waa qu'est-ce que ça ne ko noonu parce que dafa am benn curricula bu ñuy jaar. Hmm. Euh, mënoo def journalité defoo déontologie mënoo def journalité defoo éthique te ñaar déontologie bi mooy règle yi nga xam ne ñoom ñoo tënk métier bi éthique mooy loo xam ne boo wéetee yow kese ak yàlla. di xam ndax lii ngay wax ni dëgg la wala du dëgg nga seet ëllëg boo koy layoo ak sa borom est-ce que lii ma wax nii yàlla dina ma ko nangul wala déet hmm. soxla woo gendarme c'est le tribunal de la conscience mais bu fekkente ni que ni yow nit ki dafa ñëw euh, li may di tuddee les rebuts de l'université dem nga université def première année deuxième année tu cartouche amoo loo def nga xool na rajo bu nekk si koñ bi nga ñëw hmm. wan maa leen gën jàng tubaab hmm. une semaine nga commencé présenter journal. Mhm. deuxième semaine ñu ni ah, de presse nga dem toog ak président jàkkaarloog moom. Ah. posé ko ba jekk. Mhm. def sa make-up bu baax la filé la carte de visite am recevoir le bureau fois deux fois. Mhm. jël oto may la. nga xeeb ñi nga nekkaloon ni naa seet ñaa naa diir ña ñu nekk Ndakaaru ci télé yu mag ya. commencé donc yooyu dafay nekk loo xam ni dafay di yàq. le métier il faut que euh, je ne dis pas parce que dama koy di expliquer ah. je dis que ceux qui ont fait le CESTI ont le complexe de supériorité pour ñoom ñoo gën ñëpp. Mm. or am na ñu génn CESTI ñoo xam ni que ni tekkiwuñ dara. Mm. ceux qui n'ont pas fait le CESTI ont le complexe vivent le complexe d'infériorité parce que pour ñoom faw ñu wane ni ñee gënuñu ñu. mais suñu référence c'est la France soixante dix des journalistes français n'ont jamais fréquenté une école de journalisme da ngay dem ba def bac plus 3 am benn culture générale bu tegu nga dooray dem te xool ko suñu métier journaliste yi fi am yenn bagage intellectuel yi. fu ñu toogee ak yow dañ lay daaneel. moo ñi def une formation un cursus universitaire ba pare dooray dugg ci journalisme ils sont difficiles à maîtriser parce que bagage bi ñuy amee moom mooy doy waar. je donne toujours l'exemple de Aliou Diarra bi nekkoon su FM. Mm. il a été administrateur civil. au Mali terminé ñëw fi histoire géographie mooy spécialité bu toogee ak yow di wax yow si actualité internationale tu es séduit donc yooyu si yooyu la ñu war di dellu maintenant les patrons de presse itam nañu waxante dëgg ils mm. xam nga créer entreprise doon naa ko wax nga Ngagne ah créer entreprise dafa métti Sénégal. Mm. da ngay ñëw nga ubbi jënd matériel loué kër ñëw toog commencé nga dawal trois mois inspection du travail ñëw nii la te font un quitus fiscal yow est-ce que yaa ngi fay impôt. Hmm. est-ce que yaa ngi def eh, eh, verser caisse sociale est-ce que yaa ngi verser IPRES yow tu peines à payer tes ñu naan la est-ce que def nga yooyu nga ni mënuma ko ñun la ah dans ce cas redressement fiscal nga tëj entreprise ba dem ubbi waat ko feneen ça pose problème hmm. mais ña ngay jël ñi si ëpp c'est parce que bëgg nañu exercer da nga si gis ko xam dafay ñëw ne la man jàppale ma rek naa commencé ak yow man laaju ma la dara sama papa wal sama yaay dina ma jox paas ma ñëw chaque jour